asalaamualeykum tabarakallahu ñi ngi dellu waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci weeru barke bii di shahru ramadaan ñu fas yéene dellusi ci phase numéro 10 ci istuwaaru dajjal ñu gis gannaaw ba mu décidé moom dajjal ak quelques camarades de parti yi ànd ak moom mu wax ni dafa décidé quitter Tel Aviv pour dem ca dëkk ba ñoo tuddee la ville de Lod ci la ki nga xam ni moo nekkoon numéro un wu parti bi avant Dajjal te jox Dajjal kër ca dëkk ba wax ka ni ko su demee naka def ni këru boppam daal di proposer Dajjal ni ko bàyyil ma wool sama chauffeur mu yóbbu la parce que damay bañ su ngeen demee ba àgg pour trouver kër gi ngeen am quelque souci te comme man ak moom dëkk nañ fa moom xam na que dina la yóbbu ba ca biir kër ga dajal daldi di accepté mu indi chauffeur mu ñëw gaare limousine bu rafet dajal daal di dugg ñu commencé nag jël yoon bi départ fas yéene jubal ci ville bi nga xam ni moom la ñuy tuddee ville de Lout bi ñuy déparé ba mu des quinze kilomètres pour ñu àgg chauffeur bi daal di tourné ci dajal ni ko ah man ak yow jotuñu woon xamante bu baax mais dégg naa la ni ñu lay woowe Masia ak aussi dégg naa ni yow yaay léegi suñu nouveau leader bi ci suñu parti bi di Front National Juif mu ni ko parce que man ci parti bi laa bokk mu ni ko aussi sama patron ci disponibilité mu ni ma naa la yóbbu naa la yóbbu kër ga présenté la ko parce que à partir d'aujourd'hui nee na dafa dafa mel ni sa kër la dajal daal di ni ko waaw loolu la wax jox na ma clé yi ak lépp ba su ma demee rek comme am na jardin xam naa dina yaatu comme ça mu mën a nekk base parti bi ñu mën fay organiser suñu réunion yi ak yëpp chauffeur bi ni ko mais est-ce que wax na la lu nekk ca kër ga aussi Dajjal ni ko non waxuma lu nekk ca kër ga mais je crois que amul problème chauffeur bi ni ko non benn problème la kër gi am mooy kër gi set une maison hantée man ak sama patron bi nekkoon nañ ca mais mënuñu nelaw guddi mënuñu nelaw bëccëg à chaque fois bu ñu tegee même suñu table ba bëgg añ sax dafay am ay êtres invisibles des êtres maléfiques yoo xam ni dinañ ñëw di yàq rek guddi gi dañuy créer ay bruit ba kër ga kenn mënu fa reposer mu ni ko man je croyais que moom jotoon na la wax li nekk ca kër ga parce que ñun loolu ñu moo ñu fa génne même sama patron bi mu ni soo gisee mu ñëw euh, Tel Aviv jënd fi kër dëkk fi c'est parce que kër ga gale mënu fa woon nekk mais kër gale fa la financé million am yëpp boo demee comme dajal ni ko noo jotuma wax loolu mais man je pense que ni loolu du am problème ndax man comme ragaluma loolu du am problème ci man bu dee loolu dong la euh, garaawul mu ni ko baax na dajal ni ko xam naa yow ni ma la gisee bëgguloo yàgg ak man ci kër gi mu ni ko waaye man sax looloo ma gënal ndax man ku ma xam-xam ni li ma miin mooy dund bu solitaire te comme dafa bare projet yoo xam ni dama ci war a réfléchir ak dossier yoo xam ni mi ngi may xaar pour parti bi kon sax nga dem rek déposer ma ma dugg ci kër gi après yow nga retourner moo ma gënal chauffeur bi ni ko d'accord ñu dem ba agsi bi ñu agsee chauffeur bi wan ko kër gi dajal daal di koy remercier moom mu retourner camarade yi nga xam ni ñoo ko doon accompagner dajal ni leen comme kër gi chauffeur bi nee na dafa am réputation comme étant une maison hantée na ngeen seet yéen fu ngeen nekk daal moo gën parce que xam naa man ragal ragaluma ñeme naa fii mais je pense que yéen mën na leen causer problème ñoo ñu aussi d'accord bi ñu d'accordee dajjaal moom mu dugg ci kër gi bi dajjaal nekkee ci kër gi ñi nga xam ni ay dëkkandoom lañ yëpp ñoom yëg nañ ko yëg nañ ko ci press bi ni kër gi ki fa dëkk si actuellement moom mooy nouveau leader du parti Front National Juif mooy nouveau leader bi moom aussi la ñuy wax Masia yëg nañ ni aussi tamit dafa démissionné ci parti bu mag bu ñuy wax Likoud démissionné en tant que député à la Knesset ñëw fii mais kenn ku nekk mi ngi bëgg rek Euh, jàppale ko buy génn mais daal dañu seetlu ni dajal dafa nekk nit koo xam ni bëggul jaxasoog nit ñi bëggul ñu jàppale ko lépp moo koy defal boppam su génnee def ay achawam dellu si tëj port bi ci biir bu génnaatee def ay achawam su duggee kenn dootu ko gis ba bala lendemain muy def noonu ba mu am benn guddi rek bi mu fa amee sept jours benn guddi rek mu tëdd rek dégg lu mel ni benn grondement de tonnerre mel ni benn grondement de tonnerre ci biir néeg bi mu daldi jóg daldi toog ci lalam gisul dara mu tijji porte chambre génn bi mu génnee xool ci jardin bi mu gis benn être boo xam ni être bu corpulent la mais être bi ni mu taxawee boo ko doon xool fii dafa mel na nun lu ñuy tuddee façon golo yu ñuul yooyu ñuy wax baabun façon boobu la taxawee waaye particularité mooy mi ngi am ñaari béjjën ci bopp bi mi ngi nekk être boo xam ni boo ko xoolee neexul ñeme ndax rafetul waaye mi ngi rëy kawar yi ci yaramam kawar yi ñi ngi ñi ngi lang ba am ci yu ci tànk bi nga xam ni dañuy direeku ci gazon bi nekk ci jardin bi dajal génn bi mu génnee xool ko rek systématiquement mu jàpp ni moom xam na kii systématiquement mu jàpp ni moom xam na kii mu avancé jëm ci moom bi mu ñëwee ba ci moom etre bi tàllal loxoom dajal jox ko loxo ñu nuyante être bi xool ko daldi di xàqataay dal ni ko bare na liyet naa yoo xam ni jot naa leen ànd ak ñoom ci àdduna ci seen liggéey ñu liggéeyal ma mais gëm naa ni yow liggéey bi nga ma fas yéenee liggéeyal ci aaxiru zaman gëw ma ni danaa mës a am liyet naa ma bu ma liggéeyal liggéey bu ni toll ndekete être boobu ibliis la en personne dajal daal daldi daal kontaan ci loolu mu wax ko mu ni ko boo gisee être bi ni ko boo gisee ñi fi dëkkoon man ak sama njaboot ñu génne leen fi c'est parce que kër gi du seen kër kër gi sa kër la yow parce que fii si la sa héritage mystique nekk jàpp ci loxo dajjaal ànd ak moom ñu dem ba ci teen bi nga xam ni moom moo nekk ci jardin bi iblis ni ko teen bi xam nga combien d'années kenn tijjiwu ko dajjaal ni ko déedéet mu ni ko neuf ans kenn tijjiwu ko daldi ni ko tijjil couvercle bi mu tijji bi mu tijjee couvercle bi iblis ni xaaral daldi dugg ci biir teen bi disparaître dajjal a ngi taxaw di xaar mu disparaître pendant dix minutes mu génnaat mais bi iblis génnee mi ngi génn ak benn bague en or benn jaaro or iblis indi jaaro or bi ba ci dajjal nag daldi ni ko tàllalal sa loxo càmmooñ dajal tàllal mu solal ko baag en or bi ni que lii mooy sa héritage mystique ci dëkk bi moo tax dajal bu feeñee ñi koy xàmme ñépp nañu seetlu lenn ci moom daañu gis ci loxo càmmoñ bi mu takk ci benn bague en ci loxo càmmoñ bi daañu gis mu takk ci benn bague en gis nga bague en or boobu mooy héritage mystique bi ko Iblis jox dajal naka mu takk baag en or bi rek mu yëg ni dafa gën a yokk ci wàllu pouvoir fu mu daawul gis mu ngi koy gis benn bët bi nga xam ni mooy bëtu ndeyjoor bi te yàqu nga xam ni ci la daan gis jinne yi léegi yamatul rek ci gis jinne yi ko wër mais même yeneen jinne yi nekk yeneen dëkk daf leen di gis beneen bëtu càmmoñ bi daf ciy séen ay nit nit ñoo xam ni bokkuñu ak moom dëkk bi ñu nekk maanaam nekkuñu ci ville de Lout sax mi ngi janoog ñoom di seen bay seen député yi nga xam ni ñoom ñoo nekk à la Knesset Iblis ni ko à partir d'aujourd'hui booy voyager ti bu la neexee jël avion bu la neexee doo jël avion parce que à partir d'aujourd'hui dëkk boo bëggati dugg mën nga fa dugg même pas cinq minutes xam nga loolu mu wax ko mi ngi mel ni li wëli yi di faral di utiliser mu ñuy dem ci monde invisible ñu koy tuddee inaaya turabaan yu léeg-léeg ñu koy utiliser di visiter dëkk yi ci ay seconde lu mel noonu la ko Iblis jox mais li leen wutali bii amul accès nag ci monde invisible bi accès bi ci monde shahada bi lay yem dajal daal di kontaan Iblis ni ko nag gis nga teen bi ci jardin bi mu ne ko à partir d'aujourd'hui na nga xam ni mooy sa refuge heure boo nekkee en danger rek dellu li nga ñëw plonger ci teen bi sa pouvoir day gën a yokk boo génnaatee mu ni ko parce que nag mission bi nga yore muy li nga bëgg contre contrecarrer mu ni ko yombul ndax même ñoom ñi nga xam ni ñoo koy doxalit dañu amee pouvoir comme dañu amee pouvoir mystique yow dinay laaj jamono nga soxlawaat yokk sa bopp waaye heure boo bëggee yokk sa pouvoir rek teen bi mooy sa refuse ñëwal nga plonger ci biir boo génnaatee sa pouvoir day gën a yokk mais à chaque fois aussi mu ni ko sa bague bi nga xam ni mooy bague en nord bi na koy takk ci sa loxo càmmooñ bul di tàggalikoog moom mu ni ko te dinaa veiller ci yow comme ñi nga xam ni ñooy sama njaboot aussi daa daañuy veiller ci yow dajal daal di kontaan signe pacte boobu ak Iblis parce que loolu la jàpp comme héritage mystique bi mu signé pacte boobu nag ak Iblis ba noppi mu dellu nag ci biir chambre euh, di di reetaan parce que foog na ni li nga xam ni manqué woon na ko pour mu mën a contrecarrer mission axiru zaman bi jàpp na ni à partir de di am na loolu léegi nag mu commencé moom dajjal ni mi ngi xool nag nan lay commencer euh, di def ay voyage ndax bul fàttali euh, bul fàtte ni depuis bi mu juddoo en Israël ba bi muy am vingt trois ans génnul Israël mësul voyage mësul tukki mu jàpp nag ni kon jot na léegi pour mu préparer benn voyage bu mu war a def tuddee ko voyage d'affaires mais destination bi mu jàpp ni fa la war a njëkk dem mooy États-Unis d'Amérique mu jàpp ni foofu la war a njëkk dem parce que am na ñoo xam ni ci membre congrès bi war na leen rencontrer war na waxtaan ak moom mu kontaan nag ndax mi ngeeg bague en oram jàpp na ni am na pouvoir tey boo xam ni eh, dara mënatu ko téye décidé na nag léegi ni war na def benn voyage d'affaires aux États-Unis d'Amérique pour waxtaan ak ñenn ci membre congrès bi avant que muy dellu siwaat pour xool nag nan lay organiser partem bii di Front National Juif pour préparer législatif yi nu jëm kon ñi ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp bu nu ñëwee ci phase bu ci topp rek dinañ leen wax dajjal fan lay mujjeek pexe boobu nga xam ni moom la lal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey ñuy dellusi ci phase numéro 11 ci histoireu dajjal ñu gis dajal bi mu décidé voyager pour génn Israël mi ngi jóge woon ci ville ba ñoo tuddee ville de Lod mu fas yéene ñëw pour la première fois aux États-Unis waaye laata muy départ dafa téléphoné lobby juif bi nga xam ni moo nekk Amérique lobby juif bi daal di koy booleek benn sénateur républicain pour bu dajjaal agsee mu dalal ko yàlla dogal bi mu agsee sénateur républicain bi dalal ko ca Manhattan New York wutal ko fa benn résidence dajal nekk fa semaine bu nekk lobby juif bi ñëw waxtaan ak moom ñu weccoo xalaat ñu posé ko ay question ci nan la gisee seen politique étrangère bi mais dañuy seetlu à chaque fois ni Dajjal toujours dafay critiquer accords yi nga xam ni ñoom signé nañu ko ak Mahdi ba benn bis yàlla dogal benn sénateur démocrate seetsi ko bi mu ñëwee dajjal dal koy jooytu akoor yooyu nga xam ni nee na mooy li ko gën a metti bi mu waxee xalaatam ba noppi sénateur démocrate bi ni ko accord yooyu amul kenn koo xam ni neex na ko ci congrès bi mu ni ko mais il faut nga comprendre aussi lenn mu ni ko mooy problème mu di yow dafa am ci angle boo koy gisee rek muy ci côté religion bi mu ni ko dépassé na angle boobu mu ni ko actuellement problème de mondialisation économique la mu ni il faut nga xam ni Mahdi dafa am ay réew yoo xam ni dañu ko jël topp ci gannaawam def ko amirul du duñu doxal dara ci la ñoo tuddee seen commerce international te waxtaan waxtaanunu ak moom dunu signe benn accord ak benn pays te joxu leen xalaatam ba noppi kon léegi moom su fekkee ñëw na ak ay accord am ñun sunu rejeté accord yi ni duñ ko signe déjà pays yooyu nga xam ni dañu topp ca gannaawam te am doole mën nañu commencé di booy boycotter sunu ay produits mën nañu commencé même sax dinu embargo te sunu ko defee loolu mën na daaneel sunu politique économique loolu mën nañu yàqal lu bare ci lu noo tuddee mondialisation économique mu ni ko looloo tax moom bu indee accord ñun duñ ci xool côté religion bi dañ ciy xool sunu intérêt mu ni ko il faut nga jàpp ni li ñuy signé yëpp ci accord bi suñu intérêt la mais sénateur boobu wax na loolu dajaal waaye ba léegi daal comme dajjal moom bëggul accords yi loolu convaincre ko te loolu boo defoon analyse bi ci beneen côté bi da ngay gis ni c'est raisonnable ndax dañuy gis ni imam Mahdi mi ngi ànd ak arabi Saoudite li ëpp ci fi muy séjourné mooy diggante Màkka ak Médine te li ko gën a may doole mooy fexe na ba Iran ànd ak Arabie Saoudite parce que Iran idéologie chiite moo fa nekk ñu doon xaar ñoom seen douzième kalif ba ñoom interprétation biñ bi ñuy jox wàllu imam Mahdi bokkul ak sunnite yi bi ñu koy jox mais comme imam Mahdi feeñ na ñëpp nangul nañ ko ñoom il sont obligés ñu dem ànd ak moom léegi nag ànd boobu nga xam ni dem nañu ànd ak Mahdi de même que l'Irak de même que la Turquie de même que le Pakistan de même que l'Indonésie ñooñu ñëpp daje wëlbatiku nag ànd ak imam Mahdi def ko seen amirul mumini mu jàngal leen ni leen problème bi du problème mu man chiite la wala man sunnite la mun leen problème bi mooy avant tout ay jullit lañ kon problème mu islaam la te mu ni bu dee ñun ñëpp benn yàlla lanu gëm bu dee ñun ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñoo ko bokk kon leneen waratunu diviser leneen lu ci nekk nag mu ni mën nañ ko teg sur la table ñu waxtaan ci kenn ku nekk xool lan mooy intérêt lan mooy intérêt société musulmane bi au lieu muy xool lan mooy intérêt personnel am loolu Iran d'accord ceeg moom Arabie saoudite d'accord ceeg moom yeneen pays arab yi ci ëpp d'accord ceeg moom léegi nag ñooñu ñëpp bi ñu demee ba reconnaître que ñu def ko ñoom amirul muminin kon déjà moom mi ngi gouverner ay état yoo xam ni kenn du ci jël benn décision te laaju ko léegi nag loolu moom su ñëwee ak ay accord am su ko présenté woon pays yële suñ ko rejeté léegi état yooyu forcément ñoom ni ni riposté mooy soit li sénateur démocrate boobu wax ñu embargo leen wala ñu boycotté seen ay produits te loolu daf leen di yàqal moo tax ñoom dañu jàpp ni accordam yi nga xam ni dañ koy signé di ko nangu seen intérêt la mais malheureusement Dajjal moom mënul dégg loolu Dajjal nekk na pendant huit mois ca Manhattan waaye ba léegi mënul d'accord ak loolu nga xam ni ñoom bëgg nañ ko dugal ci boppam bi mu demee ba xam ni amatul lu mu fiy defati ndax am na lu mu doon wut pour sunu demee ñu del ko ko ca congrès bi ñoom déggewuñ ko noonu ci la décidé ni dafay retourner en Israël dem Jérusalem pour préparer élection législative yi nga xam ni ñooy ñëw bi mu demee ñu teg ci un an nga xam ni actuellement mi ngi âgé de vingt cinq ans élection législative yi ñëw waaye bi élection yi ñëwee Dajjal am benn adversaire de taille muy parti bi nga xam ni fa la démissionné woon te ñu di ko wax Likoud moom mu ñëw comme étant le leader di Front National Juif waaye Likoud nag ci campagne bi ñoom discours bi nga xam ni moom lañ doon tenir message bi ñu doon véhiculer mooy message de paix message de justice di di wax surtout ci économie bi ni mu ni mu ni mu amee solo waaye aussi di défendre di défendre accord bi nu signé ak Palestine di wax ni euh, noonu nu signé ko loolu loolu mooy loolu mooy le bon choix parce que suñ ko deful woon kon peut-être dina nu dina nu étouffé wu ci wàllu économie wala dinañ leen embargo wala xëy na peut-être même sax dootuñu mënati jaay seen produit que ni ñu koy jaayee nii ni àdduna bi fi mu toll ni lool la laaj ñoom discours boobu la waa Likoud message boobu ñoom moom lañ doon véhiculer seen campagne tandis dajal moom mi ngi doon véhiculer la contraire accord bi baaxul waruñu ko woon signé ci benn nit nii ñun sunu domination dañ ko war a wane di wax di wax finalement bi ñu demee ba élection yi peuple israélien gën a déglu Likoud que Front National Juif Likoud am cinquante députés Front National Juif amul lu dul quinze députés loolu nag indil dajaal déception bu mag parce que moom mi ngi doon xalaat am majorité mu ñëw ak quinze députés te parti bi mu jóge am na cinquante loolu indil ko déception bu rëy waaye teewul comme temps boobu moom moo doon leader bi mënul woon lu dul siéger mu siéger à la Knesset waaye teewul accord yi fay ñëw ak projet de loi yi fay ñëw mënu ci dara parce que amul majorité ñoom ñu continuer di liggéey ak li nga xam ni noonu jamono jooju la àdduna doon doxe te mooy accord yi nga xam ni day jóge ci pays araab yi ñu ñëw di leen imposer loo xam ni buñ ko signé dafay nekk soit ngëneel goo xam ni day dellu ci Palestine wala soit mu nekk loo xam ni dafay dellu ci bénéfice su monde musulman yi loolu continuer mais Dajjal il est impuissant ndax mënu ci dara ndax amul majorité mu toog ci Knesset ak député yi nga xam ni ñoom la àndal pendant quatre ans ba nga xam ni il est âgé de vingt neuf ans ñuy waajal beneen élection législative ay conseillers am ñëw ci moom ni ko je pense que pour ñu am majorité il faut nga changer discours discours bi ngay tenir tant que yaa ngi koy tenir fi peuple bi toll léegi ak fi àdduna toll je pense que toujours dañuy dellu gannaaw mais duñu avancer kon il faut nga changer discours même bu fekkee gëmoo sax li ngay wax nga jëm nga jëm ci ànd parce que actuellement àdduna bi yëpp lu mel noonu rek la ñuy bàyyi xel. dajal ni leen dinaa ci xalaat mais je ne pense pas que ma mën ko parce que gëwuma loolu bëgguma accord yi. ah ñu ni en tout cas il faut nga réfléchir ci su fekkente ni bëgg nga ñu am majorité dajal xelam dem ci li ko Iblis waxoon te mooy bu demee ba euh, di waaj a perte pouvoir am rek na dellu waat ci ville de Lut ñëw ci teen bi nga xam ni fa la ko Iblis joxe woon bague or bopp dajal jël quelques jours jóge Jérusalem delluwaat ci ville de loute bi mu delloo ca ville de Lut dem ca kër ga fanaan fa deux jours troisième jour bi rekk Iblis ñëw taxaw ci kanamam le matin bi mu ñëwee ni ko stratégie bi nga xam ni moom nga war a utiliser pour mën a gagner ci législatif yi di ñëw mu ni que ñi ànd ak yow wax nañ dëkk discours bi nga bi ngay tenir nit ñi duñu dégg discours boobu kon il faut nga changer mu ni ko changement bi jiitu mooy gëmuloo yàlla sa bopp nga gëm yàgg nga ko wax te c'est tout à fait normal Iblis a ko ko wax ni ko waaye il faut nga changer jéem a gëm-gëm lu yàlla maanaa doo gëm yàlla mais il faut nga woote yonent mu ni ko xam nga depuis bi ngay xale ba léegi ñi ngi naan la Masia mais yow yaa prouvé wul ni yow yaay Masia da nga bàyyi ñu la koy wooye rek waaye wane woo ko mu ni ko boo demee ci bible bi da ngay gis ni ñi ngi xaar Masia am na façon yu nu joxe ni caractère yi lay taxawe mu ni ko li ma bëgg mooy nga changer ni ngay doxe changer melokaan dem wuti beneen tunique bu jaune genre manteau bu jaune sol ko euh, bague en or bi ma la jox defal magie sa karaw yi xam nga dajaal karawam yi ay cheveux crépus la am mu ni ko defal magie nga gën a yokk sa karaw yi ñu gën a gudd ba ci sa mbag nga sol manteau bu jaune bi génn soo génnee wax leen ni leen yow yaay yonent yow yaay yonent insa dajjal loolu lay njëkk woote yonent yàlla insa moo tax yonent bi waxoon masiix dajjal waaw le messie trompeur mu ni ko waxal ni yow yaay yonent insa boo waxee yow yaay yonente instant xam nga daañ li wax forcément comme yonente nga koon yow yaa ngi gëm yàlla ndax yonente yàlla mais fekk na mu ni ko loolu bu mu la déranger yow gëmoo ko mais loolu c'est stratégie pour pour élection législative yi ñu jëm su boobaa lu ñu la laaj lu nekk rek nga nga génne noonu dëggal masiya bi nga xam ni moom lañ la yàgg di woote wax wax leen ni yow yaay yonent yàlla Insa soo ko defee léegi daanu gën a focaliser wu ci sa nekk yonent au lieu que ñuy focaliser wu ci accords yi nga xam ni moom ngay contre Iblis ni ko boo defee nii di nga gis ni di nga réussir ci élection législative yi di ñëw dajal nag daal di dégg recommandation Iblis boobu décider nag ni élection législative yi ñëw noonu la ci engagé woo mais en tant que ni muy wootee yonent mais nag utiliser turu Insa ni Insa lay utiliser comme bible bi annoncé na ni dina wàccaat moom lay woote kon ni masiya biñ ko doon woowee moom la mais mooy yenent yàlla insa loolu la dajjal décider pour dem ak noonu ci législatif yi kon xam naa bu ñu dellusee ci phase numéro 12 rek dinañ leen wax fa muy mujjeeg woote yonent boobu macha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñuy dellusi ci phase numéro 12 ci histoire u ginnaaw bi ko Iblis convaincre wax ko ni ko soo bëggee remporter élection législative yi ñu jëm dangay fexe ba tur bi nga xam ni Israël yàgg nañu la koy woowe ba ngay xale te muy Masia nga prouver ko mu ni ko nag ni koy prouver mooy da nga leen di wan réellement ni leen yow yaay yonent yàlla Isa te pour nga wan leen ni réellement yaay yonent yàlla Isa da ngay fexe ba amee ay melokaanam di solu na muy solo ni ko bible bi waxe waaye aussi di doxe na muy doxe Iblis ni ko man nag lu ma mën ci sama wàll pour jàppale la danaa la jàppale dajal daldi koy déggal daldi koy nangul bi mu ca jógee moom dajal mu dem Jérusalem bi mu agsee mu daldi wut benn manteau bu jaune daldi koy sol daldi def ci pouvoir magique ni nga xam ni karawam yi dafa nekkoon lañoo tuddee cheveux crépus mu fexe ba guddal kawar yépp ba noppi liisal ka ba kawar yi di dal ci mbaggam mu daldi jënd benn mbaam daldi nag sol manteau bu jaune bi daldi war ci mbaam mi nag commencé nag di dox ci mbeddu Jérusalem yi synagogue bu mu romb rekk ñi nekkoon ci biir yépp daw génn daldi commencé ñépp di ko seetaan di laaj ndax xanaa yonent yàlla Insa dafa ñëwaat xam nga boo seetloo ci histoire nag yenent yàlla instant boobu dajjaal di woote ca Jérusalem mooy bi nga xam ni soo demee ci bible bi juif yi moom lañu gëm te mooy ni bu ñëwaatee rabbin juif lay doon Jérusalem lay nekk comme ñoom mission bi koy indi mooy fexe jëmmal li nga xam ni moom la Israël yàgg di rêve te mooy domination du peuple juif ñu gis ni Insa moomu ñoom dañu jàpp ni su ñëwee lépp lu muy def ci intérêt judaïsme lay dellu mais ci intérêt peuple d'Israël lay dellu kon bokkalug bi nga xam ni moom la yonent bi wax ni moo war a wàcc te war a wàcc à l'est de Damas ñoom juif yi bee la ñu jàpp looloo tax nag dajjal utiliser loolu jël melokaanu yenent yàlla Iisaa moomu nga xam ni moom la bible bi di jàngale daldi war mbaam mi nag nit ñu topp ca gannaawam ñépp a ngay coow masiya waaye ñépp ngay jaaxle it ci ñi ni kii yenent yàlla Iisaa la ndeke muy dox ñu topp ko ba ca benn pénc bi mu agsee ci pénc mi mu wàcc mbaam mi daldi taxaw bi mu wàccee mbaam mi taxaw moom dajjaal mu ni leen yàgg ngeen ma woowe masiya bi may xale ba léegi waaye boo gisee mësuma woon leen wax ni réellement man maa yonent yàlla insa c'est parce que boobu dafa jotagul woon mais léegi nag dafay soogay jot moo tax ngeen gis nii ma changé ci melokaan changé ci colin waaye it commencé di war mbaam ni nga xam ni noonu laa ko doon defee ci sama dund bu jiitu ba maanaam dafa dafay woote yenent yàlla insa moo tax mu naan nii laa ko daan defee ci sama dund bu jiitu ba mu ni loolu yëpp nag pour wan leen rek yéen peuple juif ni ki nga xam ni moo leen di sauver ñëw na mais en même temps kuy sauver waale communauté yëpp nga xam ni Euh, tey jii ñi ngi dund ci injustice dajjal mooy wax mu ni ñi ngi dund ci injustice te injustice bi yëpp mu leen mu ni ki leen ko teg mooy benn nit kooku nga xam ni euh, màkk la jékkee saa rek am lu ñëw wax rek ñépp topp ko muy la nga xam ni la nga xam ni mooy fas yéene feeñ ca xaj ba imaamal mahdi di def ca màkk malaaka boobu di tiim yooxu waaw loolu lay def référence ni am lu ñëw wax rek ñëpp wëlbatiku daal di ko koy topp mu commencé signé ay accord créer injustice mu ni mu ni boo gisee actuellement ni muy doxee mu ni da ngay gis ni ñoom seen bopp muy monde musulman bi gis nga ñoom rek actuellement ñoom ñooy dund dund bu paisible ñoom ñooy am ay revenu ñoom ñooy ñoom ñooy nekk ci li nga xam ni daal euh, boo seetee seen avantage lay doon mais ñun dara du ci suñu avantage fi mu taxawee mag ñi nga xam ni ci synagogue yi lañu nekkoon ñoom ñëpp a ngi taxaw di ko xool Dajjal di wax ba yàgg rek di jéem a convaincre ñi ko wër jékki saa rek benn picc bu ñuul benn picc bu ñuul daldi ñëw picc bu mag picc boo xam ni rëyaayam kenn mësul gis na mu toll daal di ñëw tiim mbooloo mi rekk picc bi daldi yuuxu picc bi yuuxu wax leen ni leen kii nga xam ni moo taxaw di wax ak yéen kii mooy yenenti yàlla Iisaa kii mooy almasiix mi nga xam ni moom ngeen doon xaar te histoire nekk ci bible bi kii la ñëpp daal di jaaxle te li ñu xamul mooy picc boobu ibliis moo jël jëmmi njanaaw bu ñuul ñëw tiim ko wax loolu pour pour gën a convaincre nit nit ñi nga xam ni ñoom ñoo doon déglu dajjal mooy la ko Iblis junjoon ni ko lu ma la mën a jàppalee naa la ko jàppale dajjal nag daal di yëkkati loxoom ni ni voilà mu ni gis nga tey maanaam preuve bi ñëw na mu ni pourtant lu mel nii nag moo amoon ca màkk ci nit kooku rek tax ñëpp wëlbatiku ci monde musulman bi topp ko mu ni kon tey feeñ na ni loolu am na fii ci Jérusalem wane ni man mii man maay le profet Isa werante yi door nag nit ñaa ngay déewante ñii ñi ngi naan moom la ñii ñi ngi naan eh, doy na waar ñii ñi ngi jaaxle waaye ñëpp ñi ngi commencé nag di ko bàyyi xel ñëpp ñi ngi commencé di ko déglu parce que ñoom ñoo ko tuddee woon Masia ci instant boobu fekk na mi ngi tombeek dixième jour ci shahru muharram fekk imaamal mahdi ak ñu bare ci compagnon ya mu àndal ñoom bis boobu dañu woor ña nga ca Médine bi ñu nekkee ca Médine fekk imaamal mahdi mi ngi terminé ñaari rakkaa yoo xam ni daf ko doon julli pour di ko sante yàlla muy rakkaa la naka mu terminé ñaari ràkkaay yi rek kenn ci collaborateur am yi ñëw woo ko ni ko kay xool chaîne de télévision yépp ngay diffuser ndeke actuellement li nga xam ni mooy xew ca Jérusalem nit ki nga xam ni ma nga ma nga sol manteau bu jaune karaw gaa ngay dal ca mbagg ya mi ngi ànd ak benn mbaam ci wetam ñi ngi diffuser en boucle picc bu ñuul bi nga xam ni ñëw na tiim foofu wax ni kii mooy yenent yàlla Insa tax na mbooloo manque wër juif yépp ñu ngi ko wër imaamal mahdi ñëw xool télévision bi gis réellement li ñu ko wax dëgg la chaine de télévision yépp ñu ngi diffuser en boucle image boobu àdduna bee ngi commencé ñëpp di yéemu comme imaamal mahdi xam na ni kii dajaal la moo jël melokaan bu mel nii mu bëgg attirer seen attention mu def déclaration def déclaration wax ni jullit bu nekk ci àdduna bi te di ma dégg fa nga nekk na nga fa toog te nga continuer sa liggéey comme dara xewul parce que kii réellement du du yonent yàlla instant kii dajjal la bu nga xam ni dafay mbubboo yonent yàlla insa ba pare tamit li muy wax yépp concerné wul alxuraanul karim li muy wax concerné wul sunna li muy wax concerné wul lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu gëm te di Muhammad li muy wax mi ngi concerner le judaïsme ak ñi nga xam ni ñoom lay lënkook ñoom kon kenn ku nekk fa nga toog na nga fa des te nga nekk ci sa yitte te nga ignorer yi nga xam ni télévision yi ñu ngi koy wane. waaye gis nga message boobu imaamul mahdi jàllale message bi ñu ko dégg sax barewuñu parce que chaîne de télévision yëpp la leen ñoroon actuellement mooy jël image boobu di xew Jérusalem di ko diffuser en boucle picc boobu yooxu euh, juif yooyu nga xam ni ñoo taxaw léegi nag dajjaal ci biir mbooloo mi ni mu taxawee di wax rek kenn ñëw ci ñi nga xam ne ay journaliste lañu ñëw jege ko ni ko ndax yëg nga ni imaam di def na déclaration moom nanguwul yow sa nekku yonent yàlla instant moom nee na yow nee na yow yaay l'antichrist kon nanguwul ni yow yaay yonent yàlla Isa wax na ko léegi ba digal na monde musulman bi ni ku nekk nañu def comme dara xewul continuer seen liggéey parce que yow réellement doo yonent yàlla Isa ni ko loolu loo ciy tontu dajal daal di tourner daal di muuñ ba yàgg mu fas kanamam ba yàgg mu ni c'est tout à fait normal moom loolu la mën a wax mu ni moom moomu ngeen naan max di loolu la mën wax parce que c'est un imposteur mu ni man maay instant bu ñëw pour wane ni moom moomu c'est un posteur waaw mu ni loolu moo ma indi ba pare mu ni euh, lii nga xam ni defoon na ko muy mémise yi mu defoon yépp tey jii ci monde bi accord yi mu signé woon ak lu ne dafa xam ni dama ñëw pour dindi loolu kon noonu la mën a réagir waaye bi Dajjal waxee loolu chaîne de télévision yi jàllale message boobu problème bi nag li ko indi dëgg-dëgg mooy li nga xam ni moo daloon jullit yi ca Uhud moo leen dalaat ci moment boobu ndax imaamal Mahdi dafa ni leen woon kenn ku nekk fa nga nekk na nga fa des te nga def ni comme dara xewul au lieu que ñu déggal ka defuñu noonu ñoom dès l'instant que imaam al Mahdi prononcé na ni kii dajjal la rek te c'est la première fois ñoom ñu gis ko ci télévision bi ñu koy diffuser ñëpp commencé di fexe kenn ku nekk yaa ngi xool nan ngay voyager def le tout pour rejoindre Makka wala Médine ndax déggoon nga ni yonent bi ni du fa dugg ñëpp abandonné seen poste chef yu mag yëpp nga xam ni ñoom ñoo yore woon coopération yi ñoo yore woon euh, commerce international bi ci soldu islam ñoom ñëpp abandonné seen poste jëmale aéroport ku nekk yaa ngay seet nan ngay rejoindre Médine wala Makka parce que déggoon nga ni yonent bi ni du dugg Médine du dugg Makka te pourtant Imam al Mahdi waxoon na leen ñu garder seen position comme ni yonent bi waxoon jullit ya nañu garder seen position ca Uhud ñu ñu bàyyi wax ja ba ba mujj jële fa defet bi ñu defee noonu nag yàggul rek chaîne de télévision yëpp tourné di wane chef yi nga xam ni tey ñoo nekkoon ŋànk commerce international ci soldu islam ni ñu commencé ñoom ñëpp di dem aéroport di jël ay avion pour uniquement rejoindre Médine wala Makka c'est la Dajjal ni voilà ni benn déclaration laa def déstabiliser leen mu ni kon loolay wane ni su ngeen ñëwee yéen ñëpp topp sama gannaaw kon ñun dinañu mën a manko dinañu mën a boole suñu doole ba neutraliser ñii ak ñëpp ñoo xam ni ànd nañu ak ñoom ak seen branche yi ñu am parce que benn déclaration déstabiliser na leen ni léegi nag commentateurs yi commencé ci télévision yi ci plateau yi toog ni pourtant wax na dëgg moom benn déclaration la def benn sortie la def ñëpp ngay daw di rejoindre Makka ak Médine kon kii su fekkente ni ànd nañu moom aussi prophète bi bu ñu àndeek moom kon dana nu delloowaat li souveraineté bi ñu amoon avant que imaam al mahdi moom di feeñ mais dina ñu delloowaat ni ñu doon jë jëfandikoo ba nga xam ni lépp suñu bénéfice lay doon balaa nuy signe accord yi léegi nag kenn ku ca nekk nag commencé kay rejoindre ba ci loge maçonnique yi nga xam ni bi imaam mahdi feeñee dañu dañu fayoon ñu commencé waat ña bàyyi woon di xool nan la ñuy rejoindre pour ñu mën a créer benn organisation bu mag autour de Dajjal mi nga xam ni mooy woote yonent yàlla Insa ñu xool nan la ñuy def nag ba demandoo ensemble ci législatif yi nga xam ni ñëpp ñu ngi koy xaar ba pare pour mën ci jële victoire réglé aussi problème bi nga xam ni am na ci actuellement ci monde musulman bi ci temps boobu au lieu que ku nekk toog sa base fekk na moom monde musulman bi ñu bari ña ngay xool nan la ñuy rallier Makka nan la ñuy rallier Médine Imaamal Mahdi wax na waaye wax jëmu wax dajal ak la muy wane ca Jérusalem suul na loolu imaamal di doon wax ci diggante bi rek benn euh, juif daal di ñëw daldi ni dajaal yow yaay yonent yàlla insa dajal ni ko waaw mu ni ko mooy insa dafa daan wane dafa daan wane euh, ay pouvoir kon yow ban pouvoir ngay wane à part picc bu ñuul bii ñëw dajal ni ko loolu du dara gestu seen si biir mbooloo mi ñi ko wër benn xale mu ni ko kaay ñu puusal xale bi xale bi ñëw ba ci wetu mbaam mi taxaw dajaal yëkkati loxoom gauche bi mu takk bague en or bi daal di am lu mu ci wax rek tàllal loxo bi nekk jaasi rek mu dagg boppu xale bi ñëpp yooxoo bëgg daw mu ni noo bu kenn daw for leen bopp bi jox ma ñuy for bopp bi ak bopp bi na muy nàccee noonu loos bi dajaal tegaat ka ci kaw loosu xale bi waxaat dara xale bi reetaan rek juif yëpp yuuxu nag ni kii mooy yenenti yàlla instant kon xam naa foofu la ñuy yam tey ba ci phase bi ci topp ñu expliquer leen dajaal fan lay mujjeek organisation boobu balaa législatif yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu